بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للدين المبين وأنار لنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ونبراسا للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بكي محاربة الشرك والبدع نيلين دينيو يرنيانا وبرم تبارك وتعالى دفل التوفيق الحمد لله دي سنت برم تبارك وتعالى دي أمدك تدالة الشيخ محمد الأمين حفظه الله ورفع مقامه ووفقه وإيانا للعمل بمرضاته جل وعلا آه، مفسرين آه، صرح تيربي نحن نسمي مويلامي بسيق الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الواشعة دي تيربو أمسل أبو أحمد الشيخ رحمه الله تعالى دسي خمنا لنا خمنا نسمي موي باس باسم تباس باسم بابو موي باس باسم أهل السنة والجماعة آه، كنا نكني دال الشيخ محمد الأمين ديكو وقفل يتفضل مذكورا أهلا وسهلا بشيخ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 di jiital ci nuyoo bi Cheikh Ahmed mi nga xamante ne moo ñu dalal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq defal ko mboolem julit kon niñ ko diggee woon rek ñëw def ay taaliqaat mooy ay commentaire yoo xam yu tënku la rek ci mbind mu am solo mi ñu koy tuddee laamiyat ibnu taymiya muy ay ab manzuma boo xamante ni bu tënku la toll ci li nga xamante ni mooy seize bayt mu ci leeral li nga xamante ni mooy pas-pasu ahli sunnati wal jamaa kon mom lañu laaj mu leral pass passam mais comme niko Cheikh Ahmed waxe pass pass ibnu taymiyyah moy pass pass ahli sunnati wal jamaa kon nako ibnu taymiyyah doon waxe rek imam ahmad bi mu ñëwee leeral ci téréw di usul sunna mu ni imam ahmad wu fi lu bees dafa ñëw dekkal la nga xamanteni moy pass pass ahli sunna wal jamaa mooy yoonu asalafu saalih moo tax mu ni même bu fekkoon dafa indi lu bes sax kenn du ko nangu allahu akbar kon da nga gis ni borom xam-xam yi la leen yitteloon mooy ndëslaay alquran ak sunna ci déggnu saxaaba yi mais pas ay nit waaye nag yàlla subhaanahu wa taala lii nga xamante ne mooy xam-xam bi dafa am ci loosu ñum ko gàll kon ñooñu tamit faaw ñu taxaw leeral loolu kon ci cadre boobu ci la ñuy leeral li nga xamante ni mooy euh, laamiye gi euh, li tax ñu tuddee ko laamiye comme niñ ko waxee woon rek ci xaayat ibn abi daawud mooy dafa jeexee li nga xamante ni moom mooy laam bële dafa jeexee woon xaa xarf xaa rawiya bi bii dafa jeexee li nga xamanteni moy mooy kon inshallah taala li njëkk a def moy jàng li nga xamanteni moy manzuma bi bu ñu paree a ñëw ci li nga xamanteni mo ci aju ci teunk inshallah taala xamna naa dañuy tënk rek ndax bu fekkone ne bëgg nañ jël masala bu ci nekk daanaka dina jël waxtu ta temps amul te boo xoolee bi weesu won ci biñ doon chara leeral xaayat ibne abi daawud tamassak bi xablillahi wattabi huda wala taku bidiyan laallaka tuflihu daanaka defoon nañ ay faram ci masail yi nekkoon ci téere boobu ku ci bëgg ay faram-fàcc mën na ci dellu mais fii dañuy tënk rek incha allah lu dul ñu gis masala boo xamante ne jar na def faram-fàcc ñu daal koy def yàlla na yàlla defal taw tawfiq dañuy yombalal kon nañ jàng li nga xamante ne mooy man manzuma bi suñ paree doo ñëw ci li ci topp mu ni yaa saaili an madhabi wa aqidati ruziqa alhuda man lil hidayati yasalu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون ربهم والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول كن لول ممي قصيدة إن شاء الله تعالى يونيونا كليجا خمانتين موت أجو تي أي فرم فاتيه يلن يلا يوم كن بوكي لكي جيتو موي laamiya gi nga xamante ne dañ koy askanale ibnu taymiyata rahimahullahu taala borom xam-xam wuute nañ ndax askan gi ñu ko koy askanale lu wér la wala déet ci ñaari wax li ci gën a tënku rek mooy lu wér la ni moom lañ koy askanalee naam ndax loolu mooy li siiw ci li nga xamante ni mooy waxi boroom xam-xam yi ni ki noonu tamit fekk nañ leen lenn ci li nga xamante ni ay maxtuutaatam ay téeréem ñu fekk fa laamee gi kon moo tax loolu mooy li gën a digg doom ni laamee gi askanale kon nekk na loo xamante ne lu wér la euh, mu nekk nag euh, mbind moo xamante ne dafa aju ci wàllu pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa moo tax boo xoolee thème yi mu ci traité bariwut mais nekk na daanaka ëmb na lu baree bari waaye nag lu am solo wax na ci li nga xamante ni mooy asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yonent yi wax ci li nga xamante ni moom mooy ayatu sifaat moy melokanu borom bi subhanahu wa taala wax ci li nga xamanteni moy julit ñi dañuy gis sen borom ëlëk yowmal qiyam tere tere tam yeen masaayil yi nga xam ñu aju ci walu li nga xamanteni moy qabr qubur nit ki bu duggé ci bammel ak la fay am tere tere tamit li nga xamanteni moy al mizan jëf yi pesé ak hawdu ba nga xamanteni moy mooy dex nga xamanteni ne yonent bi alayhi salatu wassalam dina ci nandal ñen ci xétam yàlla bu mu ñu ump yàlla ñu bokk ci yonente bi ñi muy nandal ci dex kooku nga xamante ni képp koo xamante ni nan na ci dootul mar ba mukk wax na tamit ci li nga xamante ne mooy assiraat wax na tamit ci li nga xamante ne mooy aljanna ak i nga xamante ne mooy safara kon daanaka masail yi mooy yi nga xamante ni traité na ko ci li nga xamante ni mooy laami bi euh, Ibnu Taymiya nag bu fekkoon euh, bëgg nañ wax ci moom lu tënku rek moom mooy kan ndax lu jara bàyyi xel la parce que dafa bëri li nga xamante ni dañ ko koy sosal te dara lu ci dëgg rawatina Sufyaan gi nga xam dañ ko noonoo woon ابن تيمية مين تدو أحمد دي دوم عبد الحليم دي دوم عبد السلام الحراني جدو بندك من يوخ حران نكون فلي تا فين خامنتيني موي تا مونيو العراق كون فوفو جدو Euh, mooy Dimashq tey lañ ko mën tuddee Dimashq kon foofu la juddoo fa la màggee tamit euh, magg ci famille boo xamante ne nag famille xam-xam la te loolu dafa am solo lool moo tax boog loolu bokk na ci li nga xamante ne moo joué ci li nga xamante ne mu teel a li nga xamante ne mooy xam-xam bi nekk xale bu ndaw ci la mokkaloon li nga xamante ne mooy alquranu karim waaye tamit xam-xam yu bari bari mu peg ko ci li nga xamante ni mooy ci fànn yoo xamante ni wuute la te fekk boobu mi ngi nekk li nga xamante ne mooy ndaw bal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak moom biñ ko gisee xam ni kii nii ku ràññiku la ci lañ ko jox lijaa sax ni ko moom di mën na di fatwa di ubbee li nga xamante ne mooy ci diine kon loolu tawfiqu rabbil alamin la waaye tamit fami bo xamanteni fami bu bax la ñi nga xamanteni tam ñoo sonnon ci mom diko diko tette ci yoonu xam-xam motax dafa nekkon ko xamanteni ku yeme la motax al hafiz al mizzi waxna wax jo xam jam solo muni man masuma gis ku melni im taymi même ci wam sax musta gis ku melni mom moom yàlla ko defaloon tawfiq mu teela ragniku ci li nga xamanteni moy xam-xam ak tamit bëgg ko ak tamit nekkon ko xamanteni ku mokkaloon lu bare bare la la chaque ni ay ndongaam rek boo leen xoolee xam ne wax dëgg yàlla kon moom nekkoon na ko yàlla defal tawfiq ibnul qayim al jawzi rahimahullah taala ndongaam ci ndongaam la bokkoon naam euh, ibnu kathir mi ngeen di dégg euh, dimashqi mi nga xamante mooy borom tafsir ci ndongaam yi tamit ci la bokkoon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu bari lañ ibnu abdul hadi ñoom ñëpp ci ndongaam yi euh, la ñu bokkoon mu nekk ñoo xam ne tey boo leen doon lim daanaka nekk na ñoo xamante ne ñu bari la woon li taalif ci ay téere bari lool waaw waaye nag li mu gënoon daanaka mën nga ni moom mooy pas-pas bal ci xam fan yëpp la ràññi ko woon même yeneen fànn yi nga xamante ne moo tax boo delloo ci yeneen téere mi tontam yàlla tax mu xam-xam ba ñu màccoon di ko tuddee par exemple mantiq mooy logique wala ci wàllu philosophe mu ñëw tontu leen ci demal ci daru taarud al aql wa mu nekk téere bu yéeme waaw bayan talbis jahmiya demal nga xamante ne bu ñëwee di tontu même bi muy tontu li nga xamanteni moy razi tontu la bo xamanteni bu mucc ayib la ci walu xel parce que ñom dañu jàpp ni xel mom lañu jital ci texte mais leral na len ni xel mom ngeen di wax ban xel la bu fekkee ni xel bi ngeen ci nam moy xel bi nga xamanteni mom la yàlla moo ñaaleeg doom adama kon lool tawfiq rabbil alamin la ta xel boobu mënta tatane dara ci xam-xam lu dafa bayiko ci alquran ak sunna kon lool day delu wat ci li nga xamanteni moy alquran sunna finalement kon xel kon leral na ni xel du dara kon loolu moo taxoon te loolu dafa nekk lu am solo mooy sa xas mu koy tontu ci li nga xamante ni moom ci loolu la yaakaar ni ci la màcc kon rahimahullah taala talifun téere yu bari al aqidatu wasatiya mu nekk téere bu am solo ci tawhid al fatwa al xamawiya ah minhaju sunna nabawiya bi nga xamante ni ci la radd chia yi al fatawa han Euh, la chaque ni kon wax dëgg li mu taarif bëree bëri bëri bëri lu bëri lool la taarif moo tax Zahabi ci boppam nee na man bi ma dajalee li nga xamante ne mooy euh, Ibnu Taymiya li mu taarif nee na toll na ci lim boo xamante ne bu bëree bëri la toll na ci li nga xamante ne mooy junni li nga xamante ne mooy ay ci lu ñu taarif kon loolu day teg leen rek moom xam-xam moom moo ko yitteeloon xam-xam tamit ci la doon dox suba ngoon ba bëccëg moo tax sax mos tuxaluñ ci moom ni nekkoon na koo xamante ni ku maree la waaw loolu mos ko tuxal ci moom kon yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala fay yàlla yërëm ko gërëm ko euh, nekk na loo xamante ni kon lu am solo la ñu jàngat li nga xamante ni mooy seen dund borom xam yi ndax dañ ciy jëlee li nga ni moom mooy ay njëriñ moom Ibnu Taymiya nag la chaque ni ay métti yu bare bari bari xam ngeen sax ci kaso bi ci kaso bi ci la génnee àdduna fa lañ ko fa lañ ko tëjee ndax boo xoolee sufiyank yi dañ ko doon def li nga xam mooy taalib di ko booleeg nguur yi waaw di ko sosal loo xamante ne dara du ci dëgg ak ñi nga xamante ne ay mubtadi lañ ngir noonoo rek noonoo woon ak moom ngir lim doon leeral pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa loolu moo taxoon saa su nekk ñu koy boole fu ne tëj nañ ko fa ndeysaan am na benn lettre bu sax di jéggalu yaayam mooy bi mu nekkee fi nga xamante ne mooy euh, Égypte tëjoon nañ ko fi nga xamante ne mooy Caire Égypte tëj ko fi nga xam mooy Alexandre kon tëj ko ci kaso yu bëree bëri bëri dara war ko rudul li nga xamante ne mooy lan moom mooy dëgg gi mu doon motax doon wax naan maa yasnaw aadaay bi man samay non lan lañ may def parce que man neena sama aljana mi ngi ci sama deun ta moy xam-xam du taxalikoo man mukk neena buñ ma tëjee hafsi khalwa waaw buñ ma tëjee lol damay wete sama borom subhanahu wa taala jaamu yàlla tuddu yàlla subhanahu wa taala waye buñ ma raye shahada la qatli shahada buñ ma raye lol neena shahada la ma de ci yoon yàlla subhanahu wa taala waye buñ ma genné sama rew yóbbu ma feneen loolu tamit siyaaxa la kon wax deug yàlla nekkon na koo xamante ni la won ci l'islam moo tax yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala fay kon moom tëjoon nañ ko tëj yu bëri ci fi nga xamante ne mooy Dimashq nag ci xalaa Dimashq fa nga xamee foofu la génne àdduna ci année 728 728 ci li nga xamante ne mooy gàddaay bi ci dund boo xamante ni mi ngi toll ci 67 ans kon kooku mooy Ibnu Taymiya ci tënk yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala yërëm gërëm ko yërëm mbooleem borom xam-xam yi lislaam yi kon ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy taaliqaat yi ak chara bi ci tënk rek مني يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل نينا يومي خمنتني يا ماي لاج يومي خمنتني يا يودي لاج لاج بو خمنتني جبل واي بموي موي nga xam parce que amna ñu xam dañuy laaj nekul pour xam mais yow mi nga xamanteni ya ñew di laaj laaju xam ngir madhabi ak sama pas-pas nee na ruziqal huda man lil hidayat yasalu allahu akbar boroom xam dañu amoon teggin parce que fii ruziqal huda li muy tekki mooy ñaan la daf ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla wërsëgal njub man lil hidayat yasalu ki nga xamante ni moo ñëw di laaj sama pas ak sama ngir yàlla na ko yàlla wërsëgal njub bala muy laaj mu am ci li nga xamante ni mooy alhidaaya kon loolu dafa bokk loo xamante ni ñu xam la ci méthode boroom xam-xam même sax boo xoolee Muhammad bin Abdul Wahab téere bi day wax ni i'lam rahimaka Allah xamal yàlla na la yàlla yërëm kon loolu uslub la méthode la boo xamante ni bu am solo la ñaanal nit ki waaw rahimaka Allah ghafara Allahu lak waffaqaka Allah li kulli xayr kon nee na yow mi nga xamante ni yaa ñëw di ma laaj sama ngir ak sama pas-pas yàlla na la yàlla wërsëgal njub yow mi nga xamante ne laaj mu ñu nag Ibnu Taymiya tabaan madhabam moo doon madhabul hanbali la نعم حنبل امام تنجير امام احمد بن حنبل لنكون نيكون بس نك باس بس بس اهل السنه والجماعه بيغا خامتني يونتي بي عليه الصلاه والسلام موم لا فاسون صحابه يفسكو با يالا سبحانه وتعالى غرم لين موني اسمع نغا دغلو كلام محقق في قول نغا دغلو واخو كيغا خامتني واخ جو وير لا واخ جو دغ لاي واخ waaw na nga déglu xam de ndax kooku nee na laa yan thani anhu laa yan thani anhu li muy tekki mooy kooku du delu ginnaw ci limi wax lutax du delu ginnaw ci limi wax ndax day tazkiya bopam di tag bopam dedet parce que xam-xam pas pas ahlu sunna wal jamaa la wax kep ko xamanteni xam nga ko xam bu wér do ci delu ginnaw ndax moy li nga xamanteni dañ la digal nga fas ko ba kero ngay génn aduna yàlla muni wala tamutunna illa wa antum muslimun motax muni déglul waxu ki nga xamanteni wax ju wér la lay wax ta du ci delu ginnaw ta lan du ci soppiku mukk ta lolou moy li am solo julit pas-pas bu wér biñ la sant nga gëm ko dañ cee war a nekk ba dee ñëw yàlla mu ni wala tamutunna illa wa antum muslimun fala waaw bu leen dee mukk lu dul da ngeen a jëbbal seen bopp yàlla kon li am solo mu nit ki dee ci li nga xamante ni moom mooy leen mooy pas-pas moo tax mu ne laa yanfani anhu wala yatabaddalu pas-pas boobu nag duñ ci mës a dellu ginnaaw du ci mësa dellu ginnaaw waaye tamit du ci mës du ci mës du ci mës a soppi dara pas-pas ay njëriñam yaakaar nañ yàgg nañ koo wax ci yenn audio ku ci bëgg ay faram-fàcce dellu ci lool ndax audio yi la ñuy sàmmoonteel bañ mu gudd kon dafa ñaanal njub ki nga xamante ni moo ñëw di laaj njub nag ñaari façon njub moo am njub bi nga xamante ne ci loxo borom bi subhaanahu wa taala la nekk ak njub bi nga xamante ni mi ngi nekk ci loxo ñi nga xam ñooy woote bu njëkk yi lañ tuddee hidayatu tawfiq wal ilham boobu yàlla moo koy defal jàmbi moo tax bu njëkk bi bu antoo te bu bi nga xamante ni maam bu mujj bu fekkee dafa antu mooy hidayatu dilaala wal irshad yonent yi loolu moo nekk seen loxo borom xam-xam yi loolu moo nekk seen loxo mooy hidayatu dilaala wal irshad dañ lay orienté di la jubal waaye nag hidayatu tawfiq wal ilham boobu mooy li am solo loolu tax yonent bi sallam yàlla waxoon ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha nekkul da ngay ah jubal ku la neex déedéet mais yàlla mooy jubal ku la neex kon yonent yi mën na ñëw woote borom xam-xam mën na ñëw woote wax ba sonn fekkee yàlla nammul ci kooku jub fekk yàlla nammul ci kooku njub ana ñi bokkoon ak yonent bi alayhi salaam tey jamono yonent bi di leen woote mënuñoo jub yàlla nammul ci ñoom jub moo tax njubu yàlla boobu mooy bépp solo yàlla bu la defalee tawfiq kon da ngay tegu li nga xamante ne mooy yoon loolu ñu tuddee hidayatu at tawfiq wal ilham moo tax yàlla nañu ko yàlla defal defal ñu tawfiq kon ñaari njub yooyu moom hidayatu dalala wal irshad te loolu mi ngi nekk ci loxo yonent yeeg ñi donn seen xam-xam hmm? ndax yonent kenn du leen doon ci leen dul xam-xam bi ñu fi wàccoon ngay ñëw di ko di ko jàngale waaye hidaaya ba nga xamante ne mooy ëpp solo mooy hidaaya bi nga xamante ne mooy at tawfiq wal ilham kon loolu mooy li mu wax isma kalaama muhaqiqin fi qawlihi laa yanfani anhu wala yatabaddalu kon li mu bëgg a wax mooy pas-pas ahlu sunna bii ñu ñëw di ko laaj te mooy pas-pasam nee na du ci dellu ginnaaw mukk te tamit du ci du ci li nga xamante ne mooy yox yoxi lu tax parce que mooy dëgg te jullit bu nekk loolu lañ ko digal mu daal ci dee wala tamutunna illa wa antum muslimun mu ne xubbu saxaabati ba nga commencé na leeral nag ñëw xubbu saxaabati nee na passeport boobu mooy bëgg saxaaba yi kullihim ñoom ñëpp nag lii madhabu lii mooy sama sama ngir kon nee na sama ngir mooy bëgg li nga xamante ni mooy mbooleb saxaaba yi du ci tàqale xaj sàjj ak amul xaj ak seen déedéet saxaaba yi ñëpp la ñuy bëgg ndax ñoom ñëpp yàlla subhanahu wa moo leen tànn kon ibnu Mas'ud di waxoon boole leen ak yonente bi alayhi salaam ñu ñu accompagner ko ngir mën a jot jottali li nga xamante ne mooy risaala bi yàlla bi mu xoolee jaam yëpp dafa gis ne yonente bi alayhi salaam moo ci gën a sell xol mu xoolaat ci wet gi gis ni saxaaba yi ñoo ci gën a sell xol mu daal leen ni lan mu daal leen ni boole ak yonent bi sam ñu accompagner ko di ko jàppale ci li nga xamante mooy daaw bi moo tax yàlla gërëm leen ñoom ñëpp yàlla ne wa kullan waada allah alxusna ñoom ñëpp yàlla dig na leen li nga xamante ne mooy àjjana kon nee na bëgg saxaaba yëpp loolu de mooy sama ngir waaye nag wa mawaddatul qurba biha atawassalu tabaan saxaabi defoon nañ ay faram mooy ki nga xamante ni daje naa ak yonent bi alayhi salaam gis ko waaye gëm ko ba pare dee ci loolu bu ñu waxee na gis ko gumba yi nga xamanteni ku melni abdullah ibn maktum ñooñu taxul ñu wax parce que kooku dafa am ngànt mais daje na yonente bi sallam sahabi la kon sahabi moy ku daje yonente bi sallam gëm ko waye nak dé ci li nga xamanteni mom moy l'islam lislaam walaw takhallat ridda ala sahih kon ibn hajar waxé donte sax mën na mu tubbi tubbiwaat duggaat ci diine lool li ci am solo rek mom moy al aqiba moy mu dé ci l'islam kon sahabi moy ku daje yonente bi alayhi salatu wassalam hmm gëm ko dee ci loolu même bu fekkoon ab ba ab ab koo xamante ne dafa jugee ci baadee ba kaw kaw ab kaw kaw bu jugee ca kaw ñëw gis yonent bi salaam benn li nga xamante ne mooy minute rek xool ko ni ah daje moom gëm ko dee ci loolu kooku dañu koy jàppee li nga xamante ne moom mooy moom mooy saxaabi kon loolu moom mooy a saxaaba saxaaba mooy ku gëm yonent bi salaam daje moom dee ci li nga xamante ni mooy loolu kon Ibnu Taymiya leeral na ni bëgg saxaaba yi mooy li nga xamante ni mooy ngiiram ñoom ñëpp nag du ci xaajal ak seen wuute ñi nga xamante ne ñooy chia ñi nga xamante ni arrafida alayhim min allahi ma yastahiqun ñi nga xam day ñëw di rëbb Abubakar mi nga xam moo gën ci xeet bi ginnaaw yent bi di rëbb Omar di rëbb Ousmane teguñu ko nag fenn lu dul seen bànneexu bakkan ndax ay nit lañ yoo xamante ni ida urifu turiku chia yi ku leen xam rek bàyyi leen parce que tekki wuñ dara ñooñu ñoom ñoo tee sababatu sahaba saaga sahaba yi rek mooy seen métier wallahu almustaan kon mu ni xubbu saxaabati kullihim lii madhabu kon bëgg saxaaba yépp mooy sama ngir waaye nag wa ma waddatul qurba biha atawassalu waaye nag cofeel gi may am ci waa kër yonente bi al qurba fii bu ñu ko waxee mooy qarabatu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy waa kër yonente bi alayhi naam kon nee na bëgg waa kër yonente bi ak am ci ñoom cofeel mu ni bihaa ci loolu atawassalu ci lay defee tawassul xam ngeen ni tawassul mbokk yi ñetti façon la yi nga xamante ni yu ñu yoonal la kon nekete bëgg wa kër yonent bi loolu jëf gu baax la moo mom mu daal ci def tawassul kon nekete dagan na nit ki def ci tawassul ci jëfam yu baax naam dagan na nit ki def tawassul ci jëfam yu baax kon fii nii bi mu ne wa ma waddatul qurba biha atawassalu kon li muy tekki mooy dafa def tawassul ci ay jëfam yu baax rabbana innana amanna gis nga rabbana yow suñu borom innana ñun de amanna gëm nañ kon nag faghfir lana si suñ sababu gëm gi nañu jéggal histoire bi nga xamante ne tamit ñett ñi nga xam ne ñoo doxoon ba dugg ci xur wi kenn ku ne def tawassul ci lan say jëf yu baax yàlla subhana taala daal xeer wi daal di puus wi daal di puus kenn ku nekk wax man defoon naa nangam bis te yàlla yow dong yaata xuma def ko xeer ba xeer wi puus mooy ñett ñi xam ne dañu doon dox dugg ci ab xur xeer ñëw muur leen kenn ku ne def tawassul ci li nga xamante ne mooy say jëf yu baax ba xeeroo daal di dindeeku ñoom ñëpp ñu génn kon bokk na ci tawassul yi ñu daganal ci ahlu sunna wal jamaa ñetti façon tawassul yi ñu daganal mooy nga tawassul ci turu yàlla yi ak melokaan mi kaw yi walillahi al asmaul xusna faduuhu biha ñaan yàlla subhana taala ci turam yi sell yi wala nga tawassul ci sa jëf ju baax nekk ci ay jafe-jafe ne yàlla da man di jëf sàngam yow dong yaa taxoo ma def ko bëgg naa waa kër yonent bi alayhi salaam yàlla loolu maa ngi ciy def tawassul lu kon lu dagal la tawassul daf fi baax wala nga tawassul ci li nga xamante ne mooy duwaaw axikal muslim sa mbokku julli ngeen ko bu ma fàtte ci ñaan te loolu euh, yonent bi alayhi salaam bi mu génne àdduna saxaaba yi noonu la ñu doon def ak al abbas ñu ni ko daan nañ ñaan yonent bi muy ñaan yàlla daaw ñaan yonent bi de mais daan nañ sàkku ci moom mu ñaanal ñu yàlla kon nag nekkatu fi yow ñaanal ñu yàlla yàlla wàccee li nga xamante ne mooy lan moom mooy moom mooy lan taw parce que buñ nekkoon ci bekkoor yu mel noonu dañ daan dem ni al abbas ñun de daan nañ sàkku ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ñuy ñaanal yàlla kon nekkatu fi nag yow ñaanal ñu yàlla kon loolu tawassul bu dagal la amma tawassul yi xam dafa xaraam nag daganut nekkul lu ñoonal mooy di tawassul ci ay jaahu yonente bi rek ci jaahi diw ak bi jaahi nangam ak nangam wala bi xaqi nangam ak nangam wala di tawassul ñoo xamante dañoo dee loolu dafa nekk loo xamante lu xaraam kon ñett yi ma la wax moy nga xam dafa dagan ci li nga xamanteni moy ahlus sunnati wal jamaa motax fi fi bim ne wa waddatul qurba biha atawassalu moy kon nekete da fay tawassul ci jëf ci bax jo xamanteni def nako ta moy lan bëgg wa kër yonent bi alayhi salatu wassalam ndax dañ leen wara bëgg wa kër yonent bi assalam dañ leen dañ leen wara bëgg comme li nga xamanteni ay ahadith ñëw nañ ci kon ñom ñoy sahaba yi sahaba yi nak après mu ni nak lan la ci tek من ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل صحابينا نعم نيب أم أي لغا خمانتيني دايا يو خمانتيني كويلة أي نغنيل يو خمانتيني يو باري باري باري لا وانا أبك الصديق مموتي جن لا شك أبك الصديق مموتي جن نعم نيب كن نكوتي نك أم غلغا خمانتيني مو ينغنيل إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا الله أكبر مو عندنا نغموم تجد دايبي منيكو بول bul am looy tiit bul am looy jàq yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñun kon ay ngëneelam laa shakka ni bari na lool abubakar siddiq doy na sëkk rek ni dëppoo nañ xeet bi ni moo gën ci xeet bi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam omar ibnu xataab topp ci ko nga xamante ni moo doon jàmbaar ja nga xamante ni yonent bi neewoon na ko yow de yoon woo jaar seytaane du fa jaar da koy bàyyi waaw نقول إيه يا ابن خطاب لك واخ نقول والذي فوات والذي نفس بيده صحيح البخاري مسلم نقول أمول بن يون بو خمنتين الشيطان دينا فدا يوغا جار فلو دول داي جار بنين يون ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج كوكو موي كيغا خمنتين موي عمر بن الخطاب نيب تي ci المبشرون بالجنه لاني بوكو ni ma leen waxee noonu la ñu gënee ni lañ gënante ci toftaloo abubakar omar ousmane topp ci moom lañ doon tuddee zinnu rayn ma xam moo marié woon ñaari doomu yonente bi alayhi salaam bi kenn génn àdduna marié keneen ki mooy roqee ak umu kalsum kooku mooy ousmane mi nga xamante ni malaaka yi dañ ko doon rus moo tax yonente alayhi dafa waxoon ni ala astahi min rajulin tastahi minhu malaayika moo ndax du ma rus waa joo xamante ni malaaka yi dañ koy rus kooku mooy ousmane ibnu affan علي بن ابي طالب توبتي موي كيغا خامتاني موي ابو الحسن نيو كوي تدي ابو تراب لو لنتي واخون ني لا اعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله لا اله الا الله يعني بالسيد لنكو waa jooju nga xamante ni mooy Ali ibn Abi Talib dafa bëgg yàllaa ko yonent waaye nag wa yuhibbuhu llah wa rasuluhu ñii ñooy ñi nga xamante ni tey ñoo jar nit ki xar tànku tubayam di jàng seen siira di jàng seen yoon suba ngoon guddeeg bëccëg la ci fekk rek jàmm lay doon waaye nag boo leen fi bàyyee dem di jàng ñeneen ñoo xamante ne yow xamoo ñii lan mooy seen mujj ëllëg yaa ngi nax nga sa bopp موت ابن مسعود وخونكو ني من كان مستنن فليستن بمن قد مات نانيو روي كيغام ген ادنا ني خام تاني سين بير دافا لير يالا كو غارانتي تا موي صحابه يي تا ني نك لا يانتي بخوني عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين جيل لين سما سنه نين جار سما يون اك سما يونو ني خام الخلفاء الراشدين كون ني نيو نيغا خام تاني نيو نيو ген سي صحابه يي ابو بكر عمر عثمان علي ووتي امون تي اهل السنه سين بير الكوفيون رواتنا ci li nga xamante ne mooy Ousmane ak Ali kan moo gën mais li nga xamante ne stabilité ci la am ci madhab ahlu sunna wal jamaa ba ak dëppoo la mooy Ousmane mooy ki nga xamante ne moo gën ki nga xamante ne mooy Ali Nabi Talib waaye ñoom ñëpp dañoo bokk ci nga xam al ashra al mubashar bil janna ñi ci des topp ci al ashra al mubashar bil janna mooy Talhat ibn Ubaydillah ak az Zubayr ibn Awam Abdurahman ibn Awf ak Saad ibn Abi Waqas Abu Ubayda عامر بن الجراح كي خامتين موي سعيد بن زيد ني نيو العشره المبشرون بالجنه نيوم لا يونس بيغل بغل اجنا فك نيغي لن نيغي كون ني نيو صحابه يونس عليه السلام واي نيوم نييب نك واخ ام نان لي اي غنيل لا يالا واخ لا يستوي منكم دو نيمم يامونو لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا واين وكلا وعد الله الحسنى واخ دغ يالا اي دري ولكل درجات ما عملوا يامونو واي لا نيوم نييب لا يالا motax bépp fitna bo xamanteni amna sen bir la ci ahlus sunna wal jamaa gëm moy as assukuutu amma shajara baynahum moy nopi ci li nga xamanteni xewon na sen diggante parce que bo xolé shia yi ñom li sen yitte yep suba ngoon gu dégg bëccëg jéem a wuññi wala jekk li nga xamanteni amon na ay fitna ci bir sahaba yi sahaba yi ken waxu la ñu ay malaaka lañ ay nit lañ dañuy joom yonente bi alayhi salam mu kullu bani adam khata wa khayru khata'in tawwabun dañuy joom waye nak duñu tay di fente bal di def lo xamanteni seen bànneexu bakkan la dedet dañu tay ci diina ji ci fent dara wala ñu ci def seen bànneexu bakkan jamais loolu moo tax saxaaba yi boy jàng ci ilmul hadith dañ na as sahaba kulluhum udul ñom ñëpp maandu moo tax ab sahabi bu ñu léré ni mo rot ci hadith hadith bobu boobu jot a dañ koy jël waye nak loolu tegtalu ñom dañuy joom ay nit lañ moo imam ahmad rahimahullah taala la mu waxoon loolu moo nekk qaayida bi ñu ko laajee ci waaw fitna yi amoon ci biir sahaaba yi xam nga lu wax dafa ne tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kaanu yaamaloon waaw waaw moo tax Cheikh Salih Fawzan doon wax ne képp koo gis rek muy noonoo saxaaba yi kooku da nga koy laaj lan lay noonoo saxaaba yi parce que am ñoo xam dañ naan dañuy noonoo saxaaba yi mais du ci wàllu diine la moo tax Cheikh Salih Fawzan yow koo xamante ni bokkoo jamono wax dëgg yàlla dundoog moom nga bëgg ko noonu kon kooku boo ko noonu lan la nekk lu dul li nga xamante mooy wàllu diine rek bëgg leen a taxana parce que koo xamante ne séqut ak yow wàllu xaalis séqut ak yow wàllu nangam ak nangam ay problème amoon seen biir yow nga ñëw bëgg a taxaw da ngay opposé wu di en kii moo nekk ci dëgg kenn nekkul ci dëgg di sax di xas lu mel ni chien yi ñu koy defee nga xam dañuy def sax ba takfir yenn saxaaba yi wala iyaadu billah te loolu la weddi alquran loolu weddi génn ci l'islam la parce que saxaaba yi yeneen tamit moo leen bëggal àjjana yow nga ñëw ne ay yéefar lañ ñoom safar lañ jëm والعياذ بالله ñu nekk nag ñu doy waar ñoo xamante ne ñu yées lañ ñu yéeme lañ te tey ñu ngi tasaaro ci xeer bi tasaaro boo xam bu yéeme la te buñ ñëwee dañuy mbubboo ne ñoom waa kër yonent bi lañ bëgg rawatina su fekkee nga xamante ne xamuñu am ci ñoom sentiment nag di jëflante ak ñoom fekk nag ñu ngi leen di daasal paaka te yëguñu parce que ak chien dëkk buñ dem ba occupé ñëpp la ñuy rey ñoom rey ahlu sunna wal jamaa dañ koy jaamoo yàlla moo tax seen i téere ñoom dañoo gëm ni kudul chien rek yow doomu njaaloo nga wala iyaadu billah lii moo nekk seen i téere waaw ñu dul siyaa rek ñooñu ab naaw baxaayaa lañ ay njaalookat lañ ay doomu njaaloo lañ waaye nag ñoom dañoo am taqiya dañuy nëbbatu taqiya dañoo am taqiya dañuy nëbbatu mooy siyaa boo jàkkaarloo lim lay wax lim gëm bokkut loolu tax moo tax mu doy waar moo tax ñu bëri dañuy waroo ci ñoom xamuñu leen mais bis bu ñu leen xamoon rek dinañ leen ba yàlla nañu yàlla defal tawfiq bi ci loolu nag mu ñëw di wax ci li nga xamante ni mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ci alquran karim mu ne wa aqulu maa ngi wax di fas ci alquran ma jaat bihi ayatu li nga xamanteni ayatu borom bi subhanahu wa taala indi nako ne nee na fa huwa alkarim almunzalu lolu moy lu tedd li nga xamanteni ni dañ koo wàcce dafa wacce kon mi ngi leral fi pas-pasam ci li nga xamanteni moy mooy pas ahlus ahlu sunna wal jamaa ci alquran karim alquran karim ci tënk comme niñ ko waxe won waxi borom bi subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala ku takko wax la mom alquran nekul ni mom dong moy waxu yàlla dedet mais ci waxu yàlla la bok bal waxi ci gën moy alquran karim ndax mom moy téré bi mujjee wàcc waye tawrat waxu yàlla la bi nga xamanteni kenn soppi wuko injil niki non zabur kon yàlla subhanahu wa taala mom ku takko wax la waye sayu ko nexé wax lolu ahlu sunna wal jamaa lolu la wax ni kalamullah qadimun nawi ha hadithul afrad wala hadithul ahad bo déggee ñu la kalamullah azza wa jalla qadimun nawi waye hadithul ahad moy yàlla subhanahu wa taala ku takko wax la moom borom bi subhanahu wa taala waaye nag saa yu ko neexee wax moom borom bi subhanahu wa taala wuuteeg yeneen kuréelu sànku yi nga xamante ni mooy al mu'tazila wala al jahmiya ñi nga xam ne dañuy weddi melokaanu borom bi subhanahu wa taala te teguñu ko fenn dul ci seen bànneexu bakkan ak tappale caaxaan moo tax tontu leen ne doy na sëkk yàlla wax ji mu waxoon mooy Moussa alayhi salaam yàlla bi mu ne innani ana allahu la ilaha illa ana faabuduni parce que ñoom dañu jàpp ni li nga xamante ni mooy alquran mindeef la te képp ku ne alquran mindeef la yow weddi nga yàlla fitnatu imam ahmad mihnabi ñëpp xam nañ ko waaw kon alquran waxi borom bi subhanahu wa taala mam melokan la ci mom medu mindeef yàlla mooy wayn ahadum min al mushrikeen istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam allah yàlla wax la ko tuddee yow nga ñëw ni mindeef la dara walu ko rul topp bànneexu bakkan ak am li nga xam mooy jeexet ci philosophie yi nga xamante moy philosophie grec yi ak ñu mel kon kuréel yi nga xam dañoo wuute ahlu sunna wal jamaa ci li nga xamante ni mooy sifaatullah azza jalla bari nañ lool mu'tazila ci lañ bokk al ashaira ci lañ bokk ah al ashaira ñoom dañ naan borom subhanahu taala naam saxal lañ ko wax mais wax bi nee nañ du ay xuruf ak ay du sawt du luy dégg mais maanaam qaa'im bi nafs la te loolu laa seqal ni tamit tappale la caaxaan la moo tax loolu mu addaahu fa mu leen di yóbbu mooy wax ne alquran li nga xamante ni mooy du waxu yàlla subhanahu wa taala parce que alqaayim bi nafs loolu sharia mi ngi ko tuddee xadiisu nafs moo tax loolu duñ ko jàppee li nga xamante ne mooy jullit fay waxul waaw maanaam maanaam kalam kon la ñu bëgg a wax mooy alquranu karim ji waxe borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne wa aqulu fi alquran maa ngi wax di am pas-pas sama pas-pas ci alquran karim mooy li aayaati borom bi subhanahu wa taala indi alquran leeral comme leer nañ nañ nañ mu nekk lu ñu wàccee ci borom bi subhanahu wa taala kon alquran waxe borom bi subhanahu wa taala waaye nekkul li nga xamante ne mooy mooy mindeef waaye nag kuréel yi nga xamante ni ñoom topp bànneexu bakkan ak li nga xamante ni mooy seen xel bopp ci la sukkandiku moo tax saa yu ñëwee di def ay njombe yoo xamante ni kenn xamul la ñuy wax fan lañ ko fan lañ ko jëlee kon alquran waxi borom bi subhanahu wa taala mu ni kon maa ngi am pas-pas ci li nga xamante ni moom mooy alquran waaye nag fan laa koy jëlee mooy li ayat borom bi subhanahu wa taala di indi mu ni wa aqulu qaala allahu jalla jalaaluhu wal mustafa alhadi wala ta'walu waaw aussi tam aqulu fi bu ñu waxee lay tek kon maa fas ci li nga xamanteni moy alquran karim moy deug maa fas li nga xamanteni ne la borom bi subhanahu wa taala wax ak yonente sallam tam wax ko te duma ci len duma ci soppi mukk dara wa aqulu qala allah jalla jalla limay wax moy yàlla neena mom yàlla mu maggi mi limay wax moy yonente bi sallam neena mom mi nga xamanteni moy aji jubali al Mustafa Mustafa al Hadi mooy ki ñu tànn inna allaha astafa aadama wa nuhan wa al ibrahim wa al imran al alamin kon nee na li may wax ci alquran de mooy yàlla nee na yonent bi nee na te wala ta'awalu te duma ci def li nga xamante ne mooy tawil kon loolu mooy li nga xamante ne jullit ci la war tënk mooy yàlla nee na yonent bi neen te doo ci doo ci dugal lu ci bokkul doo def li nga xamante ne mooy tawil واو كون يونت ما سلام لم واخ دنجكاي جيل يالا سبحانه وتعالى واخ دنجكاي جيل يالا موني وين احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله يالا موني بل يداه مبسوطان ينفق كيف شاء امنا نياري لخو واي تيغا خم تيغا گم ني يالا امنا نياري لخو boko wedde yefeur nga mais geumal yalla am ñaar loxo tabu ko tawil motax lu sunna wal jamaa ci buntu sifat dañ nan min ghairi takyif wala tamthil wala ta'til wala tawil yalla neen am na ñaari yàlla saxal gim saxal boppam ñaari loxo mooy ñaari loxo yoo xam dafa yellok màggaayam subhanahu wa taala am na nag melokaan mais ñun xamuñu ko al kayf moom xayru maalum kenn xamu ko yonent bi alayhi salaam sax xamu ko tayib léegi lu yonent bi xamul yow nga bëgg ñëw di ci dugg naa nii la ak nee la moo tax kenn gënta dëgër fit ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla topp bànneexu bakkan la kon li ñu bëgg a wax mooy ahlu sunna wal jamaa ci melokaanu borom subhanahu wa taala dañ ko koy saxal ndax qaayida imam malik boobu moo mujj nekk loo xamante ni qaayida imam malik lam tontu woon bi waaj ñu laaj ko kayfa stawa allah al arsh man ku ñàkk teggin yàlla naka la yemoo ci arsh imam malik mer ni ko al istiwa maalum ay arab lañ luñ xam la istiwa mooy mooy yàlla moo féete kaw arsh al ulu wal irtifaa yàlla moo féete kaw arsh naka la fa nekkee nag loolu kenn xamu ko al kayf gayru maalum wala majhul ni ko nag gëm ko lu war la al imaanu bihi waajib waaye nag di ko laaj bidaa la li génn leen mubtadi bi kon yàlla subhanahu taala bu waxee ni li nga xamante ne mooy moom mi nga ci kaw aras wala melokaan bu mu saxal la boom rek dañ ko war a gëm na nga xamante ne mooy yelloog màggaayam parce que laysa ka mithlihi shay dara melu ni moom kon boo ko bëggee xalaat ci sa xel wala ngay indi ay yu ci maam bunt bi boo ci dugalee xel da ngay mbàqu moo tax ahlu sunna wal jamaa dañ ciy demee li nga xamante ne mooy texte moo tax ibnu taymiya loolu la كونفيرم فيه إني وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله damay yam ca la nga xam ne noonu la yàlla wax ko beneen tam ñu bët nag tey boo defee loolu ñu naan yéen da ngeen a nangam nangam da ngeen am al jumudul fikri da ngeen a tëj seen xel yi doo leen xalaat parce que nangam nangam dañ la bunt bi amul loo ciy xalaat liñ ciy wax mooy li ci yàlla wax liñ ciy wax mooy yonente bi alayhi salaam li mu ci wax parce que leneen loo ci wax lu dul loolu wax nga loo xamante ni njombe la kon mu ne nag wala at awal duma ci def li nga xam mooy tawil tawil mooy kon téere boobu docteur la bind jinaayatu tawil fasik mooy njombe crime bi nga xam moo nekk ci fekk loo xam ne lu leer nañ la nga utal ko prix boo xamante ni prix bon la kon du ci def li nga xamante ni mooy tawil parce que borom bi subhanahu wa taala laysa ka mithlihi shay wa huwa samiu basir wa huwa samiu al basir parce que dara melu li moom kon kenn warta def tawil mais li war def moy yàlla lépp lu mu saxalal boppam yeneen bi alayhi salatu wasalam saxal ko ñu gëme ko nonu ci melokan bo xamanteni moy mooy yelloog màggaayam subhanahu wa taala lu mu saxalal bopam ñu saxal ko lu mu dàqal boppam ñu dakal ko lu mu saxalul dakal ko nag ñu rek ci li nga xamanteni moy mooy li moy mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa ci al asma wa sifat bi mu paré ci loolu ba tey di confirmer wat ci bayti yi nga xam ci top muni wa jamiu ayatu sifati umiruha haqqan kama naqala tirazu al awwalu و أ ر عهدتها إ نقالها و عن كل ما يتخيل الله اكبر برم خم خم الإسلام دفو رام يم فين كو يملو نينا وجميع آيات الصفات مولم آيات دي خم دي آيات الصفات لا نيو دي وحتي ملو كان برم بسوان تان نينا أمروها حقا نمو نيوه نون لا كو يجمي جلا ليكو نونو بطا بوكو نتلسيو تبرم خم لنين أمروها كما جات amir ruha kama jaat ni ma ñëwee rek rombal leen ko non bu leen ci dugg di ci xuus di ci wax lo xamanteni xamu ci ndax ahlus sunna wal jamaa bu ñu gëmee al asma wa sifat dañ naan la min xeyri takyif duñ ci nekk diko melal na nakala kayfa nakala yàlla amna ñaari loxo nakala nakala yàlla day deg nakala yàlla day gis nakala motax yàlla mu laysa ka mithlihi shay dara melu li mom wa huwa samiu al basir mooy aji dégg aji gis naka lay déggee naka lay gisee loolu al kayfu gayru maalum da dangay def kenn xamu ko naam am na melokaan kayfu mais na ñun xamuñ ko loolu nga war a gëm min gayri kiif parce que boo ko defee rek tàbbi nga ci li nga xamante ne mooy tasbih nuróole nga yàlla subhanahu leen te ko def loolu yéefar kon doo def takiif di ko melal nan naka la doo def tamit li nga xamante ne mooy tamthil tamthil di ko melal nan loxo nangam comme loxo nangam wala melokaan na déet loolu lépp doo ko def waaye doo def taatil mooy dàq ko comme jëhmi ni ñu ko defee dàq melokaan yàlla yëpp ni yàlla am benn melokaan te loolu mooy li gën a yées waaw doo def tamit li nga xamante mooy tawil doo ko tawil du ko utal firi boo xamante ne yow ah amoo ci benn li nga xam mooy xam-xam moo tax mu ne wa jamiu ayat sifat mbooleem ayat melokaanu yàlla subhanahu taala yi nga xamante ni ay ayat daf ko tegtale wala sunna yonent bi alayhi salaam mu ne umiru xaqan dama koy jàllale dëgg-dëgg comme ni mu ñëwee kama naqala al awalu comme ni nga xamante ni noonu la ko noonu la ko la ab trasul awal mooy li mooy mooy mag ñu baax ñi ñu njëkk ñu jiitu waaw marque xam nga trace bi ko waxee sax mooy marque marque marque bu njëkk ba lam la bëgg wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy al ulama al awail al afdaz borom xam-xam saxaaba yi nañ ko tuxalee mu ne noonu laa koy tuxalee wala imam ahmad ibn hanbal wala borom xam yi xam ñoo jàppoon ci li nga xam ne mooy aqid ahlu sunna wal jamaa sufyaan thawri sufyaan ibn uyayna ak ñeneen jul ñoom imam malik kon imam shafi'i kon neena dama koy rombale comme ni mu ñëwé ci tegg ci dëgg waye nak diko ko tuxal comme ni nga xamanteni non la ko non la ko mag ñu bax ñu tuxalee won kon duma ci soppi dara wa don data illa nuqaaliha kon dama koy delloo ci nga xamanteni ñoko ñoo won ta moy al aymatu thiqat moy ñi nga xam ñu maanu lañ won tuxalante ko neena na tuxal boo xamante dafa nekkon bu mucc ayib nek safiya naqiya sedwich neena fofu la koy delo comme ñom nañ ko tukhale won nonu la koy jotale duma ci yokk duma ci wàññi te li mom moy li nga xamantene nak moy moy mandu muni mu wa asuuluha an kulli ma yatakhay an kulli ma yataxayalu waye nak dina fexe ba ñongal ko ba wattu ko ci lépp lo xamanteni ay xalaat la parce que yàlla laysa kamithli shay kon limbe go ci ñaari beyti moy mbollem mbooleem borom bi subhanahu wa taala sax ci alquran ak sunna nee na ni mu ñëwee noonu laa koy gëmee ni nga xamante ne la ko mag ñu baax ñu tuxalee te mooy saxaaba yi noonu laa koy tuxalee waaye tamit duma ci dolli dara dinaa ko fekk ñoŋal ko waaye tamit wattu ko ba ci an ku li may toxeel ci lépp loo xamante ne ay xalaat la rek waaw moo xam xalaatu achaira la moo xam mu'tazila ya moo xam xalaatu sufiyanke la moo xam xalaatu philosophie la moo xam ñu mënti doon ñi jàng logique ak ñëpp nee na kon dama koy lan dama koy ñoŋal waaw wattu ko ba kenn du ci dolli loo xamante ni loo xamante ni bokku ci kon lii mooy taxawaay bi nga xamante ni ah, képp koo xamante ni lan képp koo xam ne da nga jaar ci yoon ahlu sunna wal jamaa da nga ko war a bàyyi xel mu nekk nag buntu boo xamante ni daanaka boo xoolee borom xam yi nga xamante ni ñoo jiitu woon ñoom problème bi lañ am ak seeni nit wutee nag ñi mujjee ñëw ñi mujjee ñëw moom ci problème ci tawxiid uluhiyya lañ am problème bal sax ci tawxiid rububiyya dañ ci am problème parce que da nga gis nit taxaw tey naan nit mo bind yàlla ak wallaahu mustaan waxu dof yo xam ken xamul lan la mais borom xam yi jitu won sen problème fim mu deug deug moy ci buntu bi al asma wa sifat motax ci lañ tarif won motax yitte woon sax li nga xamante moy tawhid al uluhiya donte wax nañ ci wuté nak jamono ji nga xam ñoy nekk ñun problème li nga xam tawhid al uluhiyya lañ am allahu al mustaan wa ala tuklan mu ne nag qubxan waaw ñaawna bonna liman nabadha al qur'ana waraahu ci ki nga xam dafa sànni al quran ci ginnam sànni alxuraan ci ginnaaw waxuñu nga jël alxuraan sànni ko si ginnaaw mais li mu indi nga ni ko fi ñukk doo ko jëfe comme yàlla ni ma waxoon rek wala ma jaahum rasulu min indillahi musaddiqun lima maahum nabada fariq nabada gis nga yahudi bi leen yonent bi alei indi lee alxuraan ah ñu koy sànni seen ginnaaw nanguñ koo jël ab ab kuréel ci ñoom nabada fariqun min alladina utul kitaba kitaba allahi waraa zuhurihim ka annahum la yaalamun mel ni ñoom xamuñ te ñoo ko xam moo tax yahudi bokk na tam ñi gën a yées parce que ñoom ñooy gayril maghdub yàlla daf leen a mere parce que dañu xam bare tek sen tànk motax kep ku xam ba pare tek sa tànk fa fii shabahum bil yahud yow yahudi ñoy sey mam ñoy ñooy sa salaf waye na kuy jaamu yàlla ci réer yow nasrani ñom ñoy ñooy sa salaf naam kon qubhan mbonte ak ñaaw na liman nabada alquran raahu ki nga xam dafa sànni alquran ci ginaam wa idha stadal li gëna yéme sax moy bu dé bay tétaliko yaqulu di wax naan qala al akhtal akhtal motax am ñoo xamanteni wax dëgg yàlla dañoo am intikasul fitra dañuy toog duñ la wax yàlla neen yonent bi neen ay kar la max lañ lay wax ak ay xawma nangam ak nangam ak kii wax na fee yoo xamante ni kenn du la ko laaj àllaaxira kenn du la ko laaj àdduna ay waxi dof rek dem bay wax ci diine naan ay axtal neen axtal axtal benn chrétien la woon shaa'ir la woon quoi ab poème bi doon wax ay poème waykat la woon mi ngi tuddoon Ghayath At-Taghlabi la tuddoon màggee fële nga xamante ne mooy Irak nekkoon na koo xamante ni kuñ xamoon la ci wàllu langue arab xamante ni dafa neexoon làmmiñ waaw mais nag li nga xamante ni ñoom fii li tax mu wax xaal axtaru mooy ñoom dafa am benn bayt boo xam ne dañ koy tettalikoo bayt boobu li gën a wér sax mooy dañ ko wax taxrif dañ koo soppi inna al kalaama la fi l fuaadi wa innama jucila lisaanu ala al fuaadi dalilan dëgg-dëgg bayt bi nekkul loolu bayt bi mooy inna al bayaana la fi l fuaadi wa innama jucila lisaanu ala al fuaadi dalilan al ashaira ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom dañuy topp abul xasan al ashari te génnoon na li gën a wér dellu ci manhaj ahlu sunna wal jamaa mais achaira ñoom ay tappale ci xaan ci lañ nekk ba léegi moo tax nangu ñoo dellu ci dëgg ñoom dañuy ñëw di tettalikoo wax ji bëgg a wane ni alquran karim du waxu yàlla subhanahu taala bi sawti wal xarf duñ ko dégg moo tax ñoom façon bu ne nañ ko wax dañ naan alquran ibara an kalaamillah wala xikaaya yëpp ay jaxaan la ibaara عن كلام الله لن يوحى تولكن كو القران كلام الله لن يوحى كن وعباره كلام لا دون حكايه نيكول لو نيتالي باسكو ني جاب جبريل ها مام مكو جيلي سي الله نيتالي كو واخو جبريل لير لول ويروت واخو يالا لا سبحان الله سي بوبم نيكول تامي لو خامتاني ها دنج كوي لان دنج كوي نيتالي دير كون دو نيتالي دو اي عبارات دارا كون القران واخي بروم سبحان الله بروم لي واخ نعم موتا نيوم دانيو نيو تيتالي كو سي الاخطل اخطل بن bayt buñ koy askanale mu ne innal kalam la fil fuat te nekkul innal kalaam nee li gën a wér mooy innal bayaana la kon bayt bu dañ koo taxrif ñu innal kalaama la fil fuaadi wa innama ñu ni wax de buñ ko waxee mooy li nekk ci xol waaye làmmiñ dañ ko def rek mu nekk li nga xamante ne li nga xamante ne mooy preuve wala liy exprimer li nga xamante ne mooy mais wax dëgg-dëgg buñ ko waxee mooy nekk ci xol al ashaari fii dañu bëgg a tettalikoo waxu yàlla subhanahu wa taala nekkul bi sawt wal xaraf nekkul lu dégg waaye wax la boo xamante ni ci biir doomu aadama lay nekk li ñu tuddee al maana qaayim bi nafs te loolu dara wéru ci parce que bu fekkoon al achaira ñoom loolu wax la kon nit ki bu julli xalaat kon julleem yàqu na kon ñoom parce que ñoom xalaat ci ñoom achaira wax la xalaat ñoom dañoo bëgg wax ni yàlla subhanahu taala du wax waxam nekkul lu ñuy dégg mais wax la wax lañ ko tuddee kalaam nafsi lañ koy tuddee ñoom te loolu lépp la chaque di tegtale ko ci bayt yi moo tax ñu yées lañ moo tax mu ni tuskare ak ki nga xam ne dara gënta bon dara gënta ñaaw ki nga xam dafi bàyyi alquran sànni ko ah war la wax ne yàlla neena wayna hadu min almushrikin mushrikina fa ajiru hatta yasma kalam allah du ko wax de mais lum lay wax ah nan lay ay axtal nee axtal kon chrétien la won bu nekkon dem bay tetti ko ci chrétien lool moy gëna yes yees di wax ci diine yàlla di tettali ko ci ay chrétien na innal bayana la fil fuad wa inma juala lisan ala lfuaadi dalil kon bayti bi ci bab nekkul innal kalam innal bayana la dañ ko soppi mais xam nga tappalekat yi caaxaankat ñoom ñoom toll nañ ci ñemee yàlla sañ nañu wax ci yàlla subhanahu wa taala soppi loo xamante ni leen neex la kon fii li mu wax mu ni kon tuskare ñeel na dara gënta ñaaw dara gënta bon ki sànni alxuraan wax dëgg yàlla ci ginnaaw buy tettali ko naan lay axtal nee na te muy ab chrétien boo xamante ni dañ koo xamee woon ci li nga xamante ne mooy naan sàngaraak ak def na ko sudul noonu wallahu almustaan bi mu paree ci loolu nag mu ñëw ci beneen mabxas beneen mabxas ci li muy wax mooy way gëm ñi ëllëg dañuy gis seen boroom subhanahu wa taala yal nañ ko yàlla defal kon mu wal muminuuna yarawna xaqan rabbahum wa ila samaai bi gayri kayfin yanzilu nee na ñi nga xamante ne way gëm ñi ëllëg dañuy gis seen borom lii di mooy li sax ci alquran ak sunna naam way gëm ñi ëllëg dañuy gis seen borom subhaanahu wa taala dëgg nag mais fii ci àdduna moom kenn mënta gis yàlla comme ni ñu ko waxee woon képp ku la woote woon fii ci àdduna gis na yàlla waxul dëgg ak ku mënti doon kon yonente bi alei bi mu ràññaane gisul yàlla kon yàlla ci nature bi ñu bind mënuñu ko gis motax musa alayhi salam la histoire ba leeroon na waaw falamma tajalla rabbuhu lil jabal jaalahu dakkan wa kharra musa saiqa fi ci aduna kenn mënta gis yàlla lan tarani lako walakin undur ila al jabal kon ëllëg yowmal qiyaam way gëm ñi dañuy gis seen borom loolu mooy alquran ak sunna saxal way la samaay bi xayri kayfin yanzilu ni ki noonu tamit borom bi subhanahu taala day wàcc saas bis bu nekk guddi gu nekk guddi gu mujj ñoom ñetteelu xaaj mujj bi ci guddi gu nekk day wàcc ba ci première asamaan mu ne nag waaye nag bi xayri kayfin yanzilu ci lu dul melokaan boo xamante ne dañ ko xam naan nii lay wàccee wala nii wàcc boo xamante ne mooy yelloog màggaayam kon addila yi nga xamante ne ñoo tettale ni boroom bi ëllëg dañ koy gis yawmal qiyaam yàlla mu ne wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira wajhu dalaala min al aaya mooy ilaa bi mu wax ilaa rabbiha naadira ilaa boo xam luga yi leeral nañ ni bu fekkee dañ ko booleeg man proposition la boo xam ne buñ ko booleeg fi'lu nadara nadara li muy tekki mooy gis-gisu bët moo tax foofu tamit faayida lugawee la nadara buñ ko waxee boolewuñ ci dara li muy tekki mooy xaar unduruuna naqtabis min nuurikum xaar leen ñu tëbb ci li nga xam seen leer waaye fekk na boobu daanaka njëriñ wax jooju amul njëriñ unzuruna naqtabis min nuurikum ñu leen qiila irji'u waraakum faltamisu nuuran mooy ëllëg yoon xiyaam waaw yëfari bu ñu ñëwee naan xaar leen ñu tibbi seen leen ñu leen del leen at jël leen àdduna ngeen uti li nga xamante ne mooy leer kon unzuruna bu ñu waxee nadarana mooy xaar nañu xaar kon nadara bu fekkee ni àndut ak dara benn xaraf li muy tekki mooy xool mooy xaar intadir intadir yaani bu fekkee dafa ànd ak li nga xam mooy fii li muy tekki mooy taamul unzur fil mawdu yani taamal fii bu fekkee ilaa la nag li nga xamante ne mooy li muy tekki mooy bët mooy xoolu bët moo tax yàlla mu ne wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira ilaa kon bi mu wax ma day teg ni day tegtal kon ëllëg dañuy gis borom bi bal demal ci lu gën a leer loolu yonent bi alayhi salaam lilladina ahsanu lxusna wa ziyaada loolu moom benn amul benn lënt-lënt lilladina ahsanu lxusna wa ziyaada yàlla mu lilladina ahsanul xusna ñi nga xam dañoo def lu rafet yàlla moo leen di fay ajjana wa ziyaada ziyaada boobu yonent bi alisam sax imam muslim hadis suhayb moo ko firee ni mooy xool kanam borom bi subhana taala yàlla nañu ko yàlla defal yàlla lañu ko yàlla defal kon yonent bi moo firee ziyaada bii nii mooy xool yàlla gis yàlla noonu ko yonent bi firee ci hadis sahih bu fi sahih al-imam muslim bal yonent bi alayhi mu ni innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr di ngeen gis seen borom kon ni ngeen di gisee weer bi ci li nga xamante ne mooy laylatul badr bu demee ba am li nga xamante ne 15 jours weer bi ni muy leeree noonu ñëpp di ko gis te nee na laa tudaamuuna fi ru'yati te doo leen buuxante ci gis ko xam nga weer bi buñ koy xool kenn du buuxante foo taxaw da nga koy gis ëllëg tamit borom bi subhanahu wa taala noonu lañ koy gisee kon nuróolewul yàlla ak weer waaye dafa nuróole gis ak gis kon boroom bi subhanahu wa dañ koy gis di ngeen gis seen boroom ci jahratan yawmal qiyaam woy gëm ñi foo tam ñu leeral ni way gëm ñi li gën a wér mooy way gëm ñi dong ñoo koy gis mooy julli ñi yéefareeg naa fekk duñ ko gis te loolu mooy li gën a metti dee gisoo yàlla allahul mustaan yàlla ñu yàlla saxal ci lislaam rey ci li nga xamante ne mooy tawxid waaw imam shafi'i aaya bi nga xamante ne yàlla dafa ne kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun ñoom de way weddiñ ëllëg dañuy teg kiiraay seen diggante seen borom duñu ko gis imam shafi'i tettali ko ci aaya bi ni bu fekkee ni yéefar yi duñu gis borom bi kon julli ñi dañ koy gis loolu mooy mafhum al muxaalafa kon li ñu bëgg a wax rek mooy ci tënk ci masala bi mooy julli ñi dañuy gis seen borom ëllëg yomal xiyaam ñoom donc naam euh, mu teg ne wa ila samaa bi xayri kayfin yanzilu ni ki noonu tamit borom bi subhanahu wa taala bokk na ci ay melokaanam mooy sa guddi day wàcc ñetteelu xaaj mujj bi di wax kan moom may ñaan may ko kan moom may laaj ma jox kan moo may jéggal lu ma jéggal ko naka lay wàccee allah alam waaw en tout cas day wàcc yàlla ne day wàcc day wàcc yonent bi ne yàlla wàcc day wàcc naam gëm nañ ko naka la nag al kayfu xayru maalum kenn xamu ko mooy day wàcc wàcc boo xamante ni mooy yàlla ko màggaayam parce que yàlla kenn melu li moom laysa ka mithlihi shay wa huwa samiu al basir lii de boo ci tënkoo lii boo deewee am ngërëmal yàlla boo ci tënkoo la dugal say mbiru bopp wala say mbiru sëriñ wala ay tappale yoo xam asan seen sëriñ sax ñoom tappalekat yi sufiyanke yi amuñu xam-xam tawhid waaw mais li ma bëgg wax rek mooy boo ci dugalee loo xamante ni wax dëgg yàlla bokku ci boo deewee di nga xam lépp lépp dëgg la te nga xam lépp deug la kon saxna ci yentou bi ci hadith abi hurayra mu ne yàlla subhana taala day wàcc ci guddi gu ci nek ba ci asamaanu premier bi sama dunia kulla layla ci ñetteelu xaj mu jigi di wax kan momay wo ma wuyu ko kan momay laaj ba joxo kan momay may jéggalul ma dar koy ma dar koy ma dar koy jéggal kon lool moy li nga xamanteni leral nako fi ci li nga xamanteni moy mooy bi bu nek lo xamanteni nak lu am solo bi mu paré ci lool nak mu da tuxu dem ci benen masala bu am solo moy li aj ci wàllu misaan moy ci mbir yi nga xam day xew ëlëk yow xiyam fofu dañuy tënk rek ndax jëlon nañ ci ci bi jàngale xaaye bi mu ne wa qirru bil mizan wal hawd alladhi maa ngi lan maa reconnaître waaw di saxal fas am gëm-gëm ni mizan de lu am la misaan mooy pesekaay bi alxawdu mooy dex gi nga xamanteni ne yonent bi alayhi salaam képp ku kep ku ci naan doto mar ba faw te bis bo soxla nañ ko ndax day tar lol waye nak bidaka di dedet duñ ci naan motax tax yonent day ñëw di nandal ñen ci xéta malaka yi dox digënté ñu ko dédé suhqan suhqan nañ la sori muy laaj lutax muy laaj lutax déglu foofu kon yonent day tétalé xamul kumpa kon ana tay yi nga xam ñoo ñëw nañ yonent do xam kumpa xamul kumpa parce que bu xamoon kumpa kon du xam ni ñi ni ni duñ ay bidakat waye mun ñu ko dédé sori li xamoo ma ahdathu ba'dak li ñu sos sa ginnaaw kon dex googu wax dëgg ya ñay cay naan mooy way gëm ñi kon nañu maytandiku bidaa ak sos baaxul parce que wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi naar bépp bidaa réer la te bépp réer fa mu jëmee borom mooy safar wala iyaadu billah mu ni kon maa ngi reconnaître ni misaan man gëm naa misaan yi dañ ko war gëm parce que yi ay mbir la yoo xam mbiru kumpa la jullit gëmam du mat ba daf gëmam du nekk jullit ba keroog muy gëm yi faaw mu gëm yi ci arkaanu iman la bokk alaxira lépp aju wal iman bil yawmil axir kon gëm na mu ni gëm naa misaan ni la ñuy peese gëm naa li nga xamante ni mooy moy xawdu ba moy dak ñi nandal muni ni nak arju anni min huriyan anhalu maa ngi yaakaar gis nga julli day yaakaar fa yàlla ak lo bax bax nga yaakaar yàlla baynal khawf wa raja da lol moy li nga xamante moy yoon yonent innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban gis nga dañuy yaakaar raghaban di am xemmem waye rahaban tamit di tit mo tax julli day nekk baynal khawf wa raja du ci notal ben bàyyi ben bi kon neena ma ngi yaakaar anni minhu riyan ëllëg ñu nàndal ma ci anhalu bu ko defee mu mën cee naan ni ki noonu tamit siraat wax na ci ni ki noonu tamit nee dañ koy tàllal ci fi nga xamante ne mooy ci kaw jahannama fa musallamun naajin wa axarun muhmalu waaw ki nga xamante ne mooy ki mucc mooy ki yàlla muccal waaye nag ku yàlla seetaan ci li nga xam mooy maandoom nga daal leen tàbbi ci li nga xamante ne mooy safaar wala iyaadu billah kon almizan li ko tegtale bëri na ci alxuraan yàlla mu ne fa amma man thaqulat mawazinuhu nga xam te seen balance dañu 10 ñooñu de wax deug yàlla fa foofu fi ayshatin radiya ñooy ñi nek ci li nga xamanteni wax deug yàlla ci ak texe kon dess la yi nga xamanteni ne ñoo tegtale li nga xamanteni moy al mizan lu am la moy peese balance ba ñuy peese balance deug deug la ñu ci peese yàlla mu ne wa mawazin al alqista li yawm al qiyamati فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها لا إله إلا الله وكفى بنا حاسب كل لب لني بس لو توتي لو باري كل لي داي تتلني ودي يالا داي بس بس بالانس أمنا بني بس بس بناك بروحان ووتي نان لن لني بس لي گنا وير سي گاتال موي لب لني بس داني بس جف دي بس كي جف نيت كي دي بس ليغا خامتيني موي فاني بيند ليغا خامتيني موي موي جف يا الصحف يعني أنت مع السلام حديث المجد صحيح البخاري من كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ها نينا نياري بادي خمد ندفع ويا فلول تلامين يل بقو لول ويا مديس بلاس ما سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أنا نياتني تينيو ساقن تلو من نين خي سو بون دون ديف لي دون سبحان الله بحمده سبحان العظيم تا بورت عمل اوكازيون ساي غادم تي اوبيتال تو دي خار مي دي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ديكو تيل ديكو باي خيل يعني دول سوتو دي لوخ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بكرو غاي ييغ يعني توك ديفو دار ديل تود بروم سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يعني تبع السلام kon fi leral na fi ni jëf dañ koy peese moy li parce que li jëf la li ngay def ni di wax subhanallah bi hamdi subhanal azim kon dafa dis ci balance kon dañ koy peese niki non tamit nit ki ci bopam dañ koy peese parce que yentibi neena da nga gis wa jo xamanteni la yati rajulul azimus samin da gis wa jo xam day ñëw nek na ku reuy lol ci yaram bi yawmal qiyam mais la yazinu inda allahi janaha bauda wallahu almustaan wul fa yàlla lu tolli la fu yo yàlla ci yàlla musal kon loolu day tegtali kon nit ki tamit dañ koy peese kon dañuy peese nit ki di peese jëf yi di peese tamit li nga xamante ne mooy as suxuf comme xaritul bitaaqa ni mu ko tettalee kon li gën a wér mooy lépp la ñuy peese dañuy peese jëf di peese kii jëf di peese tamit li nga xamante ne mooy mooy li nga xamante ne mooy as suxuf bi mu paree ci loolu mu dugg ci alxawdu alxawdu comme ni ñu ko waxee mooy dex ga yonent bi alayhi salaam mu ni ana faratukum ala alxawd maa leen di jiitu ci fi nga xamante ne mooy lan mom moy hawdaba ta moy mooy dex biñ jangale al haya waxon nañ ko li nga xamante ne mooy melokaanam waxoon nañ yaatu wayam dafa melni bo boo doon dox 1 mois ni ki doon tamit li nga xam moy guddayam ndoxam mo gëna wex lem mo gëna wex weex naam ndoxam maahu abyad min al laban mo gëna wex weex lolou yàlla do nga xam mel subhanahu wa taala mais yonent melal nañ ko mais ëllëg yowmal qiyam ñi nga xamanteni ni bàyyi nañ tappaleeg caxaan ak bida ak sos si diine incha allah yonte bi ne leen teeru foofu nandal leen ci waaye nag xetam moo gën a neex misk kaysaanuhu mooy li nga xamante mooy ndab yañ fay naanee dafa tol ni li nga xamante mooy biddeewu asamaan si képp ku ci naan mar ba faw kon loolu mooy li nga xamante ni mooy dex googu wax naa nag comme ni ñu ko xamee biddaakat yi duñ ci naan naam kon loolu tamit lu jara e, bàyyi xel bi mu paree ci loolu mu dugg tamit ci li nga xamante mooy as siraat wax na ci wa kada siraat yumaddu fawqa فوق جهنم فمسلم ناج واخر مهمل كون لي الصراط تميت مو نيك نا لو خامتيني لو ييمي الصراط لو ييمي ييمي يعني انت السلام نكم ملي حديث ابي سعيد دا ييمي مدحضه مزله عليه خطاطيف وكلاليب لا اله الا الله لا اله الا الله مو نيك لو ييمي الصراط nga xamanteni dafa ñaw waaw moo tax ñëw na ci yenn sahil ma muslim abu saïd mi koy wax ni nee na moo gën a lan sew li nga xamante ne mooy karaw waaye moo gën a ñaw li nga xamante ne mooy jaasi ni ko yoon tam ñëw na ci xaakim ci xalif salman moo gën a lan dafa mel ni moo gën a ñaw lañ set waaw yonte bi ni madd xabatun mazillatun maam dafa dafa rattax da day dagge dafa rattax kon ay weñ la yoo xamante ne yéeme la sew lool te ñëpp nag wa minkum illa waariduha waaye kii njëkk a jéggi siraat mooy yonente bi alayhi salatu wassalaam xeetam tamit ñoom lañ ñoom ñoo njëkk a jéggi li nga xamante mooy assiraat kon assiraat nekk na loo xam lu yéeme la waaye nag yàlla ba mu ne ihdina siraat al mustaqim siraat alladina anamta alayhim borom xam-xam yi leeral nañ ci seen tafsir ni nit ñi ni ñu rawante selon ni ñu rawante ci assiraat al mustaqim bii nii ëllëg tamit noonu la ñuy rawantee as bële nga xamante ni moom lañ teg ci kaw jahannam lu jara a bàyyi xel la kon ki bëgg a raw fële ci sirat bële na gëm a góorgóorlu ci as siraat al mustaqim bi te li ci jiitu mooy tawxid li ci jiitu moom mooy bañ li nga xamante ni mooy biddaa li ci jiitu mooy bàyyi bokkaale wéetal yàlla bàyyi bokkaale jëfe sunna maytu li nga xam mooy biddaa nit ki nim la gën a rawee ci li nga xamante mooy sunna yonent bi salaam ëllëg assiraat al mustaqim bi ak sunna yonent bi ëllëg noonu lay gën a gaawee ca fa nga xamante ne mooy assiraat moo tax yonent bi salaam melal na ko am na ñoo xamante ne dañuy mel ni al barq melax ci gaaw am na ñoo xam ne dañuy mel ni tarfat ayn am na ñoo xam ne dañuy mel ni li xam mooy ngelaw luy dem am na ñoo xam dañuy daagu am na ñoo xam te nangam ak nangam kenn ku nekk selon sa jëf la yàlla def lee tawfiq ba nga gaaw mais wax dëgg yàlla nekk na lu doy waar kon loolu mooy li nga xamante ni mooy الصراط بيغا خامتيني واخنا كون دنجكو تالال سي ليغا خامتيني موي سي جهنم واي نك يال ديفال توفي موي كي موتش كو يالا واخ دغ يالا سيطان سي ماندوتيم غا دادي لان غا دادي فاي تابي موني والنار يصلها الشقي بحكمه وكذا التقي الى الجنان سيدخل الله يالا بولك ني دو اجنا كون في ليرال تامني اجنا سفر الاملا waaw àjjana mooy ku àjjana ñi texe ñoo fay dem yàlla subhaana taala képp ku mu daf la fa tàbbil ci ngëneelam waaye ku mu tàbbal safara daf la fa tàbbil ci li nga xamante ne mooy maandu teem moo tax ku yàlla jëflanteeg yow ci maandu nga dem safara bu jëflanteeg yow na ci ngëneel ak njëkk ak teraanga nga dem àjjana yàlla na yàlla jëflanteeg ñun ci njëkk ak teraanga ngëneel te yàlla bu mu jëflanteeg ñun ci li nga xamante ne mooy ak maandu te kon àjjana ak safara lu am la. نكدفكو ورقم من ولي كل حي عاقل في قبره عمل يقارن هناك ويسأله كن كنك سنون نك بروم خل يعمل تنين لا توقف ألك يوم القيام لا تابو بزخ تبرزق بلا وخ عاقل في قبره كيف هو خامن تاني أمون خل بس كدف مم تجين كجف ميكو خامن تاني أمون خل لا رجعتكم نكون مسكلف kooku de ci biir bàmmeel dinañ ko laaj jëf goo xamante ni foofu daf koy jëriñ wala mu koy lor dinañ ko laaj de ñaari malaaka yi bu ñu ñëwee nakki rek mun ko defoon nañ ci ay faram-fàcce te mbugalu bàmmeel lu sax la annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adxilu ala firawn ashadda al azab firawn ñu ngi koy mbugal ci bàmmeel ëllëg yowmal xiyaam nag tàbbal ko biir safara kon bëggul bàmmeel lu am la bal likoy koy tettale yonent bi alayhi salam da daan jàngal nit ñi ni bo len deme ba nga xamanteni ni ngi def tay tay mujj bi ngeen ñaan allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr yàlla yàlla nga musal ci mbëggalu bàmmeel kon lo ak yenn yoo xamante yu bëree bëri la yu tettal li nga xamanteni moy mooy mbëggalu kon lu am la kon mbëggalu bàmmeel lu am la naam ci barzakh lu am la wa li kulli xayin aaqilin mi fi qabrihi amalun يقارن هناك ويسأل منينك هذا اعتقاد الشافعي في ميجي خلي نين اللي ما لوخني ما يبص بص على الإمام الشافعي دي بص بص على الإمام مالك دي بص بص على أبو حنيفة دي بص بص الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ينقل لكم من كتب خليش يوم لم لبغوا فوق ما يتعي يبدين يودي أسكن الإمام مالك نان سفيان كلا بل صحيح نان كيو سوصل نان الإمام مالك نان كو خاو ما جانج فقط نان كو كيو نان غم نان درر دوش دقلول أمو تعالى لأوير دي يودي أسكن الإمام مالك نان سفيان كلا ونين يب dañoo bokkoon ci ay matu salaf kon nee na mu ni hada atiqaadu shafii wa malikin wa abi xanifata thumma ahmada yunqalu comme niñ ko tuxalee ci ñoom kon ñoom lii mooy seen pas-pas kon keneen ku ñëw askane leen loo xamante ne wax dëgg yàlla bokkatu li waxoo dëgg da nga leen sosal mun nag fa in ittabaxta sabilahum fa mu wafaqu boo toppee seen yoon nag mooy yoonu salafu saalih aqida ahlu sunna wal jamaa mu ne yow de yaay ki am tawfiq yàlla defal tawfiq waaye wa in ibtadaata boo sosee nag fa ma alayka mu awalu kon boobaa sa bopp kon boobaa yaay ki nga xamante ni yaa tooñ sa bopp kon lii mooy li nga xamante ni laam yi bi buggoon leer rek ci tënk donte am na masaay yoo xamante ni jar na ay faram-fàcce mais jiitu na ñu def ci ay faram ci yeneen jotaay yi kon képp koo xamante ni bëgg na ci loolu mën a dellu ci loolu kon li wax daal mooy fa in ittabaata mu fa muwaffaq boo bëggee am li nga xam mooy tawfiq toppal seen yoon waaye nag boo toppee beneen yoon wala nga sos xamal na yow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 لا يخفى على صريف علمكم أن علم العقيدة هو أصرف العلوم كن بني سانت بروم بي تبارك وتعالى تي خيو الغماك دي مني سني شيخ شيخ محمد الامين حفظه الله وجزاه الله خيرا نيو دي ني ليرال ليغا خامنتي موي باس باسو اهل السنه والجماعه في منظومه بو ام صلبي دي لامي ابو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بقي كوم ني نغا خامي باس باس موم دا لو ام صلو dafa nekk lu am solo ndax mooy li nga xamante si ni mooy fondation bi mooy mooy fondation bi xam ngeen ne tabax moom su fekkee amul fondation loo tabax rek dafay dafay màbbu kon jurit bi war na itteewoo bu baax a baax xam li nga xamante si nii mooy pas-pasu lislaam bu wér ndax pas-pas dafa nekk loo xamante si nii lu am solo la bu baax a baax a baax ci li nga xamante si ni mooy ci ci jullit bi kon ñi ngi sant Cheikh Mouhamadul Amin di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal ko tawfiq borom bi tabaraka wa taala defal ko ko ci misaanul xasanaatam ci yëwu màgg bi nga xam ne moom la ñu indil macha allah daal di sarx def ay taaliqaat yu am solo bu nekk mu taxaw si ginnaaw ba mu ñu xamalee kan mooy cheikhul islam ibnu taymi rahimahullahu taala mu dikk daal di faram fàcce li nga xam ne si ni mooy manzuma bi lu nekk mu taxaw si leeral ko leeral si li nga xamante si ni mooy pas-pas bu wér di pas-pasu lislaam di pas-pasu ahli sunnati wal waane leeral si li nga xamante si ni mooy pas-pas bu yàqu di pas-pasu waa si yàlla yal nañ kon ñu ngi koy euh, santaat bu baax di ko ñaanal borom bi tabaraka wa defal ko tawfiq bu baax kon li si des nag mooy euh, ginnaaw ba ñu borom bi tabaraka wa taala defalee gu màgg gi li mooy dégg ak topp ak ak sellal dégg ak topp ak sellal nañu borom bi tabaraka wa taala wërsëgale إخلاص في القول والعمل آه، ندخ برم تبارك وتعالى دفعنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب كن لك لسي دسموي دق أكتوب لف عندك سلم ني أم بكت بباخ أم بكت بباخ من لسي أم نفهم تعملي وانا أم فهم يم نخلي لا سكت لأم صلى لسي جلي جلي جلي بي رابطن كين خمين لسي مو جارسي يون جب مو جارسي يون سنة ndax yoonu sunna moom yoonu xam-xam la bokkut ak yoon boo xamante ni da ngay ñëw ñu talqin la aw wird yaa ngi sa biir duñ la fas fasloo nga fas fasloo te la ngay fas léeg-léeg mu nekk loo xam ne si dafay wuuteeg fas-fasu lislaam loo xam ne fale yaadu billah mën na laa génn ci lislaam wala nekk yoon boo xamante da ngay ñëw def benn acte ñun la yaa ngi sa biir bu ko defee lu nekk mën ko fas lu nekk nga mën ko pratiquer waaye yoonu sunna moom yoonu xam-xam la kon yàlla na yàlla fay suñu ay boroomi xam-xam yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla sàmm leen euh, ñu continuer di leeral di leeral di leeral euh, li nga xamante si ni mooy mooy fas-fas bu wér yal na yàlla barkeel seen daawa hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam